effectivement mais en toute bonne fois soo defee erreur nga reconnaître en toute bonne foi bon fii effectivement xaw ma ko woon donc la prochaine fois je dois être en mesure peut-être d'améliorer ma gestion mais ñu ne la yow waxuñu sax ay waxu ay dañu leen ne da dëpp a kees. ngay taxaw pourtant la réponse du gouvernement la réponse du gouvernement c'est que sur les mille milliards. yi nga xam ne moo concerné woon force Covid 19 li ci am litige c' est six milliards beaucoup moins six milliards nee nañ milliards expliqué nañ ko peut être euh, zéro virgule zéro pour cent de mille milliards moo ci am litige. deniers publics. oui dañu ne soo dóoree cent wala nga dóor un milliard cinq de prison cent franc ba cinq milliards mooy mooy loolu gis ngeen tey ci mairie am na ñuy dagg ay duuti ay duuti ci mairie ngay dagg duuti cent franc cent franc. nga dëpp duuti cinq de prison la nga nekk directeur général wala maire wala ministre nga dóor ay milliards cinquante de prison la kon nag nga taxaw ni ne ay waa mais mille milliards sàccuma cent milliards six milliards rek laa ci sàcc mhm. mais six milliards c'est dix millions de dollars c'est dix millions d'euros soo ko saccoon tey tuggal da ngay nëb ci kaso gi loolu mooy dëgg kon waruñu minimiser euh, somme bi mais du sa moomeel alalu alalu askan wi la ñu dénk la ko nga dóor ko nga taxaw ne non en fait lu ma dóor bëriwut mais tu te prends pour kii toi ça veut dire qu'à la limite tu reconnais avoir fait. Mm-hmm. loolu mooy dëgg. est-ce yaakaar nga ni dina am suite judiciaire puisque xam nañu ne ministre yi nga xam ne ñoom la ñu fa cité. des ouais, proches du président. mais je pense que il y a il n'y a rien à espérer de ce régime parce que président Macky ci boppam. moo wax gémmiñam suñu nopp mu ne man am na ay dossier dama ciy teg mon coude. Ah, parce que nee na am na ñoo xam ne bu leen yóbboo kaso réew mi tàkk. <laughs> waa. Euh, na jéem a yóbbu waa ji rek kaso rek mu xam. <laughs> alors euh, daanaka ñi ngi ci ñi ngi ci émission Abdou Abdou Khoudoss. Mm-hmm. mais mais l' actualité de ces de ces derniers jours sànq Khoudoss mi ngi koy wax euh, avant ñuy commencer émission bi mooy dafa am benn soxna boo xam ne bokk na ci les figures politiques euh, les plus en vue en France ñu ne ñëw na ci Sénégal ba président Macky Sall recevoir ko am ñu ne noo waru ko parce que ku bañ africain yi la ku bañ les les émigrés africains qui vivent en France d'autres pays d'Afrique am nañu dénoncé cette audience là est-ce que position boobu nga ci am que ni euh, président Macky Sall waroon recevoir Marine Le Pen. non je pense que que le président Macky Sall reçoive Marine Le Pen moi personnellement ça ne me choque pas mais ce qui me choque c'est que le président Macky Sall interdise à Kémy Séba de rentrer au Sénégal pendant que Marine Le Pen peut venir se promener ici beneen bi. Mhm. il faut savoir aussi que madame Marine Le Pen a tout de même gagné la dernière ah, à Dakar. Mhm. donc ça veut dire beaucoup de choses. ça veut dire que ni na fii partisan mais je pense que lu président Macky Sall comme acte c'est un acte républicain parce que nous ne sommes pas des racistes. Mm-hmm. et je pense que ça doit aussi être une leçon pour Marine Le Pen elle est venue au Sénégal. Mm-hmm. elle n'a pas été victime d'une violence physique. Mm-hmm. verbale ou morale elle a été bien accueillie. et je l'invite aussi à revoir sa position envers les Africains en France. Mm. alors euh, autre chose ah euh, pour revenir à notre cuisine interne le parti socialiste bi ngeen bi ngeen bokkoon temps yi coow lu am na coow d'ailleurs dañ ne ku mel ne Abdoulaye Wilane dafa yëkkati woon kàddu wax ne président Macky Sall mënul présenté wu en 2024 le le le parti s'est réuni en urgence je crois qu'il a retiré euh, ces ces propos là mais li ma bëgg a wax mooy y a un, un débat sur d'éventuelles retrouvailles Euh, de la famille socialiste am na ñu ne ça ne peut se faire qu'autour de Khalifa Ababacar Sall am na ñu ne non non non vous n'avez dans les rangs ñibbisi fi nga xam ne fi ngeen bokkoon lan mooy euh, euh, gis-gisu Barthélémy Dias ci parti socialiste ak fi mu toll jamono ji. bon le parti socialiste ñun bu ñu xamoon il n'existe plus boobu dee na boobu dee na sul nañ ko mooy wax ci mooy dëgg mais loolu ce n'est pas grave parce que mm-hmm. parti socialiste amoon na pap amoon na maam mm-hmm. amoon na sax maamaati maam le père du parti socialiste mmh. s'appelait l'UPS. Mmh. Le grand-père du parti socialiste mhm. s'appelait le BDS. Oui. L'arrière-grand-père du parti socialiste s'appelait la SFIO. Mhm. donc parti socialiste bu ngeen xamoon. Mhm. ak couleuram yooyu boobu amatul. Maintenant, nous allons reconstruire un nouveau parti socialiste. Et ça, je vous le promets. Autour de qui C'est la raison pour laquelle je profite de cette tribune pour lancer un appel à tous les socialistes. Socialistes de naissance, mm -hmm. de cœur, de carte, de sang, de conviction. Nous devons lancer la grande marche verte vers le pouvoir. Nous vous invitons mm -hmm. à venir nous rejoindre. quant aux dirigeants du parti socialiste. lenn rek lay sàkku ci yéen na ngeen góorgóorlu ba lii di siège u parti socialiste fële ci Colobane mhm. bu leen ko tayle bu leen ko fooye bu leen ko jaay parce que nous reviendrons au pouvoir incha allah. Mhm. et le tout se fera autour de Khalifa Sall loolu la yàlla dogal te dañ koy nangu et je profite de l'occasion tamit mhm. di ñaanal dem si yàlla secrétaire général du parti socialiste feu Ousmane Tanor yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yi gën a kawe yi. Mhm. te continuer di may njabootam ak askanu parti socialiste xoolu muñ Ah, pourtant ñu ñu bëri Barthélémy dañuy wax ne euh, le contentieux est allé tellement loin entre yéen ak ñi nga xam ne ñoo incarne actuellement la direction du parti socialiste que retrouvaille mënu ci am. et d'ailleurs et d'ailleurs bu ñu bu ñu déggee ku mel ne Cheikh Seck bi nga xam bu baax a baax à l'Assemblée nationale ñu bëri nee nañ finalement c'est la haine qui s'est installée entre vous est-ce que yaa ngi wax retrouvons nu ñëw leen ñu de lancer la grande marche verte vers le pouvoir mais ce que ça peut se faire avec direction du PS non il n'y a pas d'animosité il y avait un choc des ambitions dafa amoon ñu amoon ambition de conquérir le pouvoir ak ñu amoon comme seule et unique ambition de pouvoir prôner lu may woy un socialisme de caserne mooy sur place rek du ma bouger parce que dañ ma sexal tàngal du ma bouger wante gis que am na ñu nga xam ne ni su leen tegaloon sax miche yi il faut gars yi bouger parce que lu bootu seen ginnaaw moo diis mhm. euh, ñun dafa am yéene bu ñu am pour Sénégal Macky Sall mënuñu boot mënuñu ilif nangul nañ ko nag mooy suñu président wante ñun nous avons une vision PS mënul tabax lu ñuy wooye état construire lu ñuy wooye nation ñuy taxaw te ñu ne socialiste si dañuy nekk mouvement de soutien mënul nekk te lu mu leen waxoon dikk may waxaat tey mhm. nous marchons vers le pouvoir donnons-nous la main il y trop d'émotions trop de sensations marchons vers le pouvoir man du ma tudd nag ay tour parce que am na ñu nekk parti socialiste musuñu fa tekki dara te du tey lañ fay tekki dara mm-hmm. ils ont toujours été des petits comploteurs et ils resteront encore des petits comploteurs au passage maa ngi gërëm di nuyu tamit suma yaay madame la présidente Aminata Mbengue Ndiaye di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal tamit yàlla na ko yàlla mhm. yokkal sutura une une dernière question vraiment euh, ñu bari dañu wax ne li nga xam ne moo dal PS peut-être dal l'AFP de Moustapha Niasse dal d'autres partis yoo xam ne ñoo bokk dans la coalition Benno Bokk Yaakaar c'est un peu le génie politique du président Macky Sall bi nga xam ne bi mu tegee Benno ba léegi tasul benn yoon mais il a fait de telle sorte que les partis yi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak ñoom finalement ils wala boo xam ne parti yooyu ñoo ko nangu rek rek alors si vous dites que Macky Sall c'est un génie politique mhm. je crois que mën naa juum mais man à l'heure où je parle mhm. man bëgguma nekk place u Macky Sall ah, il est président de la république quand même am nga ambition nekk président benn jour waaw mais président de la république day nelaw ba yandoor mhm. te jamono ñu toll nii président Macky Sall je ne pense pas que la vie est rose pour lui ah ñu ci bëri daal amuñu possibilité bokk ci présidentielle bi de <laughs> nga ne ñu ci bëri ci ñi nekk ci opposition bi amuñu possibilité. seen bokk présidentielle bi seen bokk wóorul xam nga Abdou Khouros xam nga tax affaire bi xaw a yéeme et en même temps mu xaw a triste. Mm-hmm. ba Sénégal doone Sénégal ba tey c'est la première fois ñu nekk à moins de douze mois d'une élection présidentielle. Mm-hmm. te ce qu'on appelle les présidentiables kenn amu ci garantie bokk xam nga loolu lan lay yee. Mm-hmm. Hmm? moo tax may relancer waat un appel à Macky Sall. Macky du ñu sa ay noon yàlla moo dogal ñu seq langue politique bi ñu nekk sa opposition kaay ñuy waxtaan parce que waxtaan moo la arrangé te waxtaan moo arrangé tamit réew mi soo ko bëggee déggee noonu baax na soo ko bëggul déggee noonu tamit ah doo wax ne ni que on t'a pas tendu la main kaay ñu waxtaan. mais bul déglu ñu lay wax ni que nii leen mbir bi di tëddee parce que da ngaa daal di jënd ay char mhm. da nga jënd lii loolu loolu loolu mooy ñuy fooy seen xel te ñoo ñu bës bu dëkk parce que ñoom leur discours c'est que l'état c'est l'état est loolu la ñuy wax depuis quelque temps l'état est prêt l'état est prêt quand ils disent l'état est prêt c'est que ñoom pare nañ pour dem combat Moustapha mhm. yàlla rek a pare yàlla kese képp rek moom kese moo pare kenn ci ñun fi parewul dañuy jéem rek Mm-hmm. te su ma la waxee xeex su amee. Mm-hmm. Macky mooy ñàkk rek xam naa fu may waxee ak lu may wax. te loolu wax dëgg yàlla mën na ñàkk. mais bu fekkee parce que Macky Sall naam ay opposants lañu ci Macky sal mm-hmm. wante luñ ko yéenee mooy kii puisse coûter le pouvoir par la grande porte. parce que loolu mooy suñu ndam ñun ñëpp. mais bu fekkee yaa ngi su jëlee beneen option. ngir jëlee beneen option. ñun mën na ñàkk wante moom du ko fekkee. bu fekkee yaa ngi wax ni euh, appel appel ça veut dire que yéen da ngeen a sës fu mu nekk nii. Euh, Abdou Khouros man fii laay yeewu Sénégal su ma ay waajur fii lañuy ñuy yeewu su ma njaboot fii lay yeewu lépp lu ma am Sénégal mi ngi lépp lu ma am mi ngi fii ci biir réew mi réew mi su tàkkee man dinaa ñàkk dina dina am lu may ñàkk moo tax ma ne président kaay ñu waxtaan. il faut pas il faut pas écouter les va t en et les faucons parce que ce sont des poltrons d'abord ay ragal lañu mais mars 2021 bu ñu gars yi wax loo am na sax ñu nga xam na ni eggoon nañ déjà Casablanca. ah oui. waaw xam nga moo tax ma ne président Macky Sall <laughs> seetal ci njaboot gi. mais contexte seetal non ma ñëw rek seetal ci kilifa diine yi seetal ci réew mi. seetal ci ëllëgu Sénégal ak tamit seetal ci sa ëllëg yow mii man Barthélémy Dias sa rakk laa du ma son noon sa opposant nag laa wante jàmm kese laa la yéene kaay ñuy waxtaan parce que sa mandat c'est fini d'accord mais est-ce que contexte est-ce que contexte yi aussi bokk na parce que bi ñu dégg président Macky Sall ñoom dañ jàpp ne peut-être mars 2021 mbirum Covid bi mi ngi fi woon ñun ñi dañ leen tëj seen biir kër xëy na réew mi dafa métti tey am na ay mesures yoo xam ne jël na ko ci wàllum euh, cherté de la vie bi ñu jàpp ne xëy na lépp euh, yemb na bon dama naa la résumer situation bi ba du Diouf di jóge fii kañ la woon du 2000 mhm. budget Sénégal ñaata la woon 600 milliards deux ans plus tard le budget du Sénégal fait 6500 milliards ndool bi dafa wàññeeku wala ndool bi dafa yokk. wàññeekuwul moom. yaakaar bu tas dafa wàññeeku wala dafa yokk bu leen fooyee seen xel affaire bi ay affaire Covid. le peuple sénégalais particulièrement la jeunesse sénégalaise aspire à un développement te mën na nekk mais dem leen ngeen xool Dubaï il y a vingt cinq ans trente ak Dubaï tey. Dubaï qui ressemble un peu à Djamena. gaz gaz. pétrole su la ko yàlla baaxee da ngay won yàlla loo ci mën pour sa askan mënuñu la baaxee pétrole ak gaz xale yi continuer di mbëkk ay gaal lépp di yokk ku feebar mënul faju ku bëgg a jàng mënul jàng après ngeen continuer du ñu ne waaye mais na ngeen toog da ngeen muñ te président Macky Sall am na wax bu mu wax wax bu yéeme. Mhm. président Macky Sall nee na le Sénégal quitte de l'indigence à l'émergence. À l'émergence. Ça, il doit retirer ses propos. Le Sénégal était en voie de développement et s'est retrouvé dans l'indigence. Ah oui. lu mooy dëgg ku ndekki du añ du reer man nga da nga di dugg ci kër. ñu ne la fii ñetti fan taa dañu fi cin. Macky Sall na moytu cette jeunesse c'est le conseil que je lui donne bu mu fooyee lii parce que les gens son à bout il faut pas forcer. D'accord. Et je vous dis, c'est pas à travers des petits calculs là mm-hmm. qu'ils s'en sortir. teg leen balaa terre nga ñëw ñu waxtaan. C'est le mot de cette émission la euh, appel de Barthélémy Diaz à euh, Macky teg bal à terre ñëw waxtaan parce que bu ñu foowee euh, réew mi ak xale yi fi ñu toll ñu ngi lay gërëm bu baax a baax monsieur le maire maa ngi leen di gërëm pour l'invitation pour l'opportunité di gërëm tamit euh, mbokki téléspectateurs yi di jégalu tamit ci kàddu yi s'il y a des propos qui ont jërëjëf Abdou Khoudoss jaa nga jëf di gërëm également ñi nga xam ne ñoo ñu doon jàppale ci émission bi bañ mën leen ko présenté ci anam yi gën ba Serigne Saliou Bey ak équipe am Serigne Alioune Kayta moo nekkoon ci régie bi mbokk yi yéen